sant tey feddli suñ tawhid baxda salaatina alal wahid te seetlu yeneen yi ñëwoon ci dunya waxe kàddun lal wan ku nekk weyna te seetlu xayru xalqi ak saabaam ya ki tax ba yàlla bind mboolem jaam ya teewul mu dem ñu naa wama muhammadun إلا رسول قد خلت لي رمضان دنيا سرور كلك ديال خير الورى ومكة دون كجال ويلا يبو أحمد المكي دندس يبو أحمد المكي باي سنو مام تيرنا إبراهيم كلي تخادم إلي مخلوق yooyu le yaari xam wi ko yetteel fa daarul mu fi xew wi le dimbetteel ab ki ala seydi ibrahima ma jooy le suuf ibran awa tafima ab ki ala xalil ibrahima ma dem nu jooy le asamaw xadima janta ngi jooy maam cerno ibrahima weera jooy laylan ba daa bayima ca moomaat sunu weeru kor jooy naa naa bi nuun na tooba suum na ma jooy si taa ndaama la sañcan daaru ja alsasin cay yàlla maa ka waaru waroote waaru baraw ka wandaawu jomme ti naa mi lillahi way jooyle leen masaana jaay lillahi ay na laa fardi xalilillahi maam Cerno Ibrahima baabullahi ayn ala xutbul warasil jaa'i xalifatil xadimi duunallahi ayn ala xarmi rijaalillahi seyxi siyuuxi qaa'idil illahi way ma ne way man mi ko ñaanal wird def ko sëriñ fu muy jëlee ti fardu mooma mayen fa daaru abdul xaadir ci darajaay sëriñ ba abdul xaadir dellu ma may musabbiqatul asri dellu ma may ridal bi duna suq mooma ko warulan fa daarul muxti ma jooy la see ahmadu awa balla baayam ba fooxoon ca kër maam balla ma jooy seex muhammadul abib baayam ba moo appal njëriñ am ceebo wa yaa xalilullahi way taandaama la getti wan góor defum la njaama wallaay saaro ngooñi war naa tuuru ma jooyo jooyi ba sama gëdi muuru saaru gi lax na saa xol mu bi wow na saa ceri la ginan na cer ma dem dem na billaay sentiment rek ak mbégte gu bëree bëri ginnaaw ko ne ne Bàmba ne Cerno moo waral bisam bi tamit ñu war cee teew ñun ñëpp rek di bisub siyaar di bisub ñaan di bisub tamit fàttaliku ah di fàttali nit ñi li leen waral di indi ci euh, jotaay yu mel nii wala bërëb yu mel nii muy ñaanukaay la ak euh, defar euh, say mbir bu ñu waxee defar say mbir nag mooy bis boo xëyee mën nga faa defaroo ba faw waaye mën nga faa yàqoo ba faw kon nañuy gën di war malaat màggal yi ak bis yi nga xam ne yu mel ne nii la te di ko def wàccuwaayam bu baax a baax. yëg gi moom bi ma ci amee mooy murid yi fañ taxawoon démb ak bërki démb fa lañ nekk ba tey ndax ku ñëw ci bis bi xam ne. passé nañ koy at at feebar boobu jaaroon fi ba woote wuñ ko woon comme ni ñu ko daan woote ñu koy wuyu see noonu waaye boo ñëwee ci bisub tey bi da nga yaakaar ne mosuñu koo bañ a woote wala mosuñu ñu bañ a woote nit ñi pour ñu teew si loolu daal yëg-yëg boobu laa amee moom moom bi ma ñëwaatee tey moom dama xam ne muridi moom lañ jàppoon démb bërki démb ña nga ca maa ngi bàyyeekoo Touba ñëw Darou Mousty di màggal si dëgg yàlla def nañ ko chaque année daal moom wax dëgg yàlla bii moom dafa ala daw mi. daay kontaan rek ak xol bu sedd rek waaw ba ma duggee ci barab bi wax macha allah du wax dëgg yàlla gis nañ ci loo xam ne moom bu dëgg yàlla kumpala si ñun daal gis nañ ko macha allah. a gis ci lu ma mosut gis ban ko dalee màggal ga tey gii màggal yi mu la génn màggal xëy na lu nu borom bi denc loon la ba tey lépp feeñ ñëpp a kontaan ku ñëw rek te maam Thierno yëkkati la kontaan. noo ngi ñaan ci kàttan yàlla yow mii taxaw di ko def nanga dem ba sa di ko def nun suñu xol seet na guy képp ku taawul daar musi nag kenn mën laa wax li ci daar musi lii moom la fi sëñ Tuubaa wàcce la tey te borom a ko liggéey mu ndaamal daar mi mu garde woon njaboot gi ba sëñ tubaa tukki ba ñibbisi sëñ Tuubaa fay na ko yàlla fay na ko yonent bi fay na ko ku fi tey xanaa am na pay lii ko mul pay doo ko am. xale yi ndaw yi doog a juddoo ñi màgg ñi màggagul. ñëpp na na roy ci maam Thierno Birahim te déggal seen waajur déggal seen kilifa yi xam nga lii déggal kilifa ko maye déggal sa waajur la ko may sa ndey liggéey ko waaye li bëgg koo am taxul nga di ko am de bisu maam Thierno bii da koo liggéey dafa nangu woon daw ko sonn ko ba tey ñëw sëñ Tuubaa faye ko moo ko liggéey kenn liggéeyul ko